sujet bu bu bu tiis la euh, am. yombul yombul abordé ah. Mhm. sujet bu métti la. et puis euh, kenn ku ci nekk aussi ak rapport bi ngay am rek ak euh, li nga xamante ni moom moo xew man particulièrement comme j'ai un rapport assez privilégié avec la Casamance. Mhm. donc forcément beneen gis-gis xëy na dinaa ko ci am. ak bàyyi ko xel ci beneen dimension. parce que effectivement lu doy waar la waaye. Afrique moo demee noonu c'est-à-dire que boo xoolee Rwanda bi seen drame bi amee dañ ci jógee defar seen réew mu nekk benn sursaut bu am solo mhm. même bu fekkee ne dimension yi bokkul mhm. mais déjà devoir de mémoire bi ñu wax fii c'est vrai loolu ci lépp la ñu dal kancaaro yi ngi nii moo gën a jege mhm. di nga dund Sénégal ba dee Dakar te doo xam kancaaro yi doo xam ne rayoon nañ fa ay tirailleurs sénégalais suul leen d'une façon extraordinaire kenn du ko xam di nga fi gis yaa ngi wax léegi ay homme politique homme politique dina fi politique ba dem ci pouvoir bi te du xam foofu. Mhm. du fa mës a jaar. yenn saa yi sax un président français moo fi ñëw conditionné la pour nga dem fa. Mhm. yaa ngi dégg kenn du am réflexe jël sa njaboot par exemple yóbbu leen fa. Mhm. gore de moins en moins. gis nga daanaka visité ko. à l'époque bu ñu amaan gan bu ñëwee rek systématiquement c'était gore mais léegi Gorée li nga koy gis ci journal télévisé bareetul. waaw gis nga moo tax ñu demoon sax ba am fitu def fa la place de l'Europe. heureusement ba dindi nañ ko léegi donc. mémoire bi ak rapport bi ñu am ak mémoire ak nan la ñuy commémorer mais je c'est l'autre chose mooy souvent aussi les hommes politiques ñooy jël en otage certaines chose di ko politiser xoolal décret yi ban moment la ñuy wut pour def décret yi veille parce que am na lu ñu bëgg après dañ koy bàyyiwaat noonu ba jubaat ci élection yëngalaat dossier bi mhm. parce que am na électorat boo xamante ni bëgg nañ ko ils ont décidé de ne pas régler certaines questions définitivement. Mmh. c'est ça aussi la vérité parce que yii nii dix-huit ans après ngay traîner benn dossier dix-huit ans après mais am na leneen lu ñu ci bëgg war nañ ko mën a régler définitivement waxuma la ngay jël fukki million dix millions de francs CFA jox ko ay nit ne da leen koy séddale parce que yow pour yow tout tout se règle par l'argent te wax na ko léegi nee na te ñun sax dañu am gàcce gu rëy a rëy c'est-à-dire que dix-huit ans après combat bi. te réew mi noonu la demee c'est-à-dire que lu xew dafa am ñoo xam dañ leen koy bàyyee ne loolu seen combat la c'est ce que loolu moo tax finalement la nation c'est vrai elle est très abstraite ñoo ngi koy kii nii waaye wax dëgg fa yàlla souvent on a du mal à avoir des consensus très forts ci loo xamante ni kenn mënu ko moom damay wax gars yi ba ci wax nga ko léegi ci sunu figure religieuse yi damay wax gars yi ne leen su fekkee ne dangeen ngeen bëggee bàyyee maam Cheikh Ibrahima Niass Baye Niass su fekkee da ngeen ko bëgg a bàyyee waa Kaolack mooy on a absolument rien compris mhm. su fekkee ne Serigne Touba dañ koy bàyyeek la communauté mouride mooy on a rien compris Seydi Hadji Malick ñu bàyyi ko Tidiane yi on a absolument rien compris te ñun loolu la ñuy def te am na ci réew ñoo xamante ni kenn mënu leen moom dëgg la tey jii Mandela am na ñoo xamante ni bokk moom diine bokkuñu ak moom pas-pas. yittewoowuñ diineem yittewoowuñ pas-pasam. Mhm. li ñu yittewoo mooy les valeurs universelles dafa accéder à l'universalité loolu la bokk ak ñëpp doomu aadama yëpp ak foo mën di bokk mais ñun on est encore dans des coteries. Mhm. yoo xamante ni moo ñuy maintenir par le bas mënuñu élever wu. loolu moo tax ñu bàyyi ak ñi combat bi ne ñoom ñoo ko moom. Mhm. man daaw ci bi ñu koy commémorer daaw fustigé na le fet que autorités yi daanaka dañ ci defoon benn. benn presque bu bu néewal ko. Ah. et ñu saaga ma ci saaga yu métti ci Facebook bi. <laughs> te dama wax rek ne lu mel nii waroon nañ ko yëkkati ba réew mi yëpp bokk ko ñu ne lan lañ ciy jànge mhm. mais encore une fois pour man une chose est de voir comment on commémore parce qu'on commémore très mal à tout point de vue à tout point de vue on commémore très mal mhm. parce que on ne retient absolument rien du tout mhm. leneen bi la mooy la mémoire collective lan lañ ciy def ba tey d'accord guñ ci ba tey lan lañ ciy def moo tax on a du mal aussi avec la culture de l'altérité mm-hmm. tey jii daanaka le rapport que tu entretiens avec l'autre da nga am problème mm-hmm. parce que boo demee di nga fekk kooku am ay père fondateur am am wax nga ko léegi tudd nga nant mm-hmm. dëkk boo dem tey jii mën nañ la yóbbu systématiquement fenn expliquer la ko xale bi gën ndaw dina ko xam mais ñun ci sunu processus de socialisation ak ni ñuy màggee loolu moo tax cadre de vie am solo loolu moo tax yooyu yëpp ñu war ko bàyyi xel donc c'est un ensemble boo xamante ni Batalo Joola foofu lañ ko war a dugal tey euh, gis nga li xew bétanti gis nga li xew ak feneen ak feneen ak feneen on apprend on a absolument rien appris donc Euh, c'est c'est dommage mais Martine soo moytuwul déwén dinañ la invité waat nga ñëw waxaat les mêmes choses. pour les mêmes choses ah.